par le président de la République. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Premier ministre. Sont nommés Monsieur Sidiki Kaba, ministre de l'Intérieur, Monsieur Elage Omar Youm, ministre des Forces armées, Madame Aïssata Tal Sall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur Ismaïla Major Fall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur Antoine Félix Ablaye Diom, ministre du Pétrole et des Énergies, Monsieur Mamadou Moustapha Ba, ministre des Finances et du Budget, Monsieur Amadou Mansour Faye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, M. Mambay Kanya, ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Doudouka, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, M. Serigne Baïcham, ministre de l'Eau et de l'Assainissement, M. Cheikh Oumar Anne, ministre de l'Éducation nationale, Madame Maria Massar, ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Monsieur Samba Ndiobenka, ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire. Monsieur Moussa Baldé, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Monsieur Oumar Sarr, ministre des Mines et de la géologie, Madame fatu Diané, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, Monsieur Sambassi, ministre du Travail, du Dialogue sociale et des Relations avec les institutions, Madame Marie Khemes Ngom Ndiaye, ministre de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur Alioune Ndoye, ministre de l'Environnement, du Développement durable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 M. Pape Sanyambay, ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Modou Diagne Fada, ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires, M. Antoine Meng, ministre des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, M. Pape Malik Ndour, ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi. Monsieur Daouda Dia, ministre de l'Élevage et des Productions Animales. Monsieur Moussa Bokarcham, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Monsieur Gallo Ba, ministre de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public. Madame Victorine Ankedish Ndey, ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Monsieur Aliou Sow, ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Madame Thérèse Faye Diouf, ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Équité sociale et territoriale, Monsieur Lat Diop, ministre des Monsieur Biram Faye, ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel. Monsieur Pape Amadou Ndiaye, ministre auprès du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, chargé du développement des chemins de fer. Madame Annette Sec, ministre auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, chargé des Sénégalais de l'extérieur. Monsieur Mamadou Salif Sow, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la sécurité de proximité et de la protection civile. Monsieur Elage Momar Samb, ministre auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé de la bonne gouvernance et de la promotion des droits humains. Monsieur Issa Diop, ministre auprès du ministre de l'eau et de l'assainissement, chargé de la prévention et de la gestion des inondations. Monsieur le Président de la République vient également de prendre un autre décret portant nomination de Monsieur Mohamedou Maktar Sissé, inspecteur général d'État en qualité de directeur de cabinet du Président de la République. Je vous remercie. jërë ngeen jëf je vais faire un petit résumé en wolof li jiitu lépp dañuy sant président de la république man ci sama wàllu bopp ci kóolute bi nga xam ni joxaat na ma ko pour ma jiite gouvernement bi en tant que premier ministre liggéey bi nag mu bëggoon ginnaaw assurer coordination gouvernementale bi maanaam fexe. nu ñuy liggéeyee ba gouvernement bi yëpp mën a booloo doon benn gis-gisam muy vision ñu mën a fexe ba nuñ ko jëmmalee mu bëggoon nag ci juróom benn weer yi nga xam ni moo ñu dese ci fii ak yi mu bëggoon ñu jël ñeenti ponk ginnaaw li nga xamante ni moom la gouvernement war a def ñu jéem a baral loolu góor góoru loolu bàyyi ci xel bu baax a baax bi ci jiitu mooy gën a sàmm réew mi ndax àdduna fi mu toll dafa xaw a jaxasoo gouvernement bi war na cee bàyyi xel ñu sàmm réew mi bu baax a baax a baax ñu ngi jëm ci élection fexe ba élection yi yàlla yóbbuñu ci jàmm ñu def ay élection yu mucc ayib leneen li nga xam ni président sant nañu ko ci wàllu koom-koom ñu fexe ba nga xam ni lii yokk koom-koomu réew mi ñu gën cee taxaw fexe bu njëg yi ñu xeex ak moom ndax adduna bi ni mu bindoo tey njëg yi yëf yi metti na lool rawatina yi nga xam ne dañ koy jënd ci bitim réew nee na na gouvernement bi lañ ca defoon nañ ko dolli gën cee taxaw wàllu xëyu ndaw yi ak la nga xam ne dañoo jëm ci campagne de commercialisation ndax nawet baa ngi bëgg a jeex ñu jëblu ci campagne te ñu bari ci ñun di dund ci mbay mi mu ne xëyu ndaw yi ak campagne agricole bi ni ci gouvernement bi taxaw li ci war yëpp ñu def ko leneen li nga xam ni président sant na ko guvernement bi ñu war cee taxaw ci saasa jëm na lépp loo xam ne day tax réew mi am jàmm rawatina këru liggéeyukaay yi mu jàpp li jëm ci wàllu njàng mi ci wàllu paj mi ak li nga xam ni gis nañ ko ci wàllu maire yi ñi liggéey ci collectivité maire yi war nañoo fexe ba jafe-jafe yi fa am gouvernement bi waxtaan ak ñoom ñu jëm ko saafara lépp nag ci kaw yoon ak loo xam ni du àndil réew mi benn gàllankoor leneen li nga xam ni gouvernement président sant nañu ko ñu war koo baral mooy xam nga ni président dafa am gis-gis boo xam ni 2014 la ko teg muy li ñuy wooye plan Sénégal émergent ñu xaaj ko ñeenti xaaj juróomi at yu nekk 2014 2018 am lu ñu ci defoon 2019 2023 mu am xaaj boo xam ni dafa war a jeex nee na na gouvernement bi taxaw ci li nga xam ni moom mooy jëm deux mille dix neuf deux mille vingt quatre deux mille vingt huit pour que plan boobu ñu mën ko teg ndax loolu rek mooy lii jariñ askan wi loolu rek mooy lii ñëpp moom mais balaa boobu la nga xam ni gouvernement bi def na ko ci deux mille quatorze ba deux mille dix huit ak li nga xam ni gouvernement bi def na ko deux mille dix neuf ba deux mille vingt dinañ ko siiwal génne ko. waxtaan nañ ca ñi ci war a waxtaanal ñëpp ndax juróom-benn weer yi passé yëpp suñuy service ñu ngi waxtaan ak borom xam-xam yi waxtaan ak acteuru société civile ak ñeneen ak ñeneen incha allah jox nañu liggéey bi dootul yàgg ñu siiwal ko wane fi réew mi toll ak fi président bëgg réew mi jëm incha allah loolu doon na loo xamante ne it bokk na ci mission yi nga xam ni président sant nañu ko muy mission yu jàmp ginnaaw mission yi nga xam ne nag bépp gouvernement da koy def mooy toppatoo li askan wi di dunde ñuy sant président de la république bu baax man ma koy dolli sant ci confiance bi nga xam ni am na ko ci man ba wax ma naa coordonné action bi gouvernement ci ndigalam incha allah dinañ ci waslu àq lépp loo xam ni mën nañ ko dinañ ko def doxal ko ci ndigalam ànd kook ñi nga xam ni ñoom lañu président booleel ndax liggéey bi ñu mën ko mottali bu ngeen seetloo léegi waxuma ko ci français gouvernement bi am na benn ministre bu ci yokk muy wane la nga xam ni président bëgg na ko ci chemin de fer gis ngeen ni def nañ fi TER ñu ngi liggéey pour TER bi jóge jógee Diamniadio mën a yegg ba aéroport am na ñu mbébét ci plan d'action bii di ñëw président waxoon na ko Thiès TER bi mën a dem ba Thiès tout comme gis ngeen ni saxaar bi nga xam ni nekkoon na fi doon dox sunu diggante ak Mali commencé nañ ko réhabiliter et incha allah balaa at bi di jeex dina yegg ba Tambacounda. gis ngeen xew-xew yi paase am na ay essais yoo xam ne def nañ ko fii saxaar bi di dem euh, Tiwaawoon demoon na Touba te Sénégal xam ngeen nii ci wàllu koom-koom am na ay alal joo xam ne yàlla baaxe nañu ko yoo xam ni xëy na buñ ko jaaralee ci otoraay bi njëg bi dina gën a yomb président nag jàpp ni loolu toll na foo xam ni war nañu am kenn ci biir gouvernement bi ku koy toppatoo mu dénk ko benn ministre muy Papa Amadou njaay pour nga xam ni pour won Sénégal yëpp won askanu yëpp cër bi nga xam ni jox na ko chemin de fer te bëgg na chemin de fer yegg foofu ma leen di sant am na it mi euh, moo koy fàttali léegi li nga xam ni euh, def bëgg na ko ñu toppatoo ko ci wàllu xëyu ndaw ñi ndax jeunesse bi lu am importance la am na ay jéego yu bari yu ñu ci dox mais liggéey bi des na dinañ ko gën a baral gën ko yokk ginnaaw bu ñu defee évaluation li nga xam ne jot nañ ko fi def ci xëyu ndaw yi ndax gouvernement bi def na ci alal ju takkoo takku am na ay emploi yu baree bari mais ni ko président bëggee action publique bu ñu mënti poser bu mu mënti nekk ci secteur bu mu mënti nekk bu plan bi jeexee dañuy jàkkaarloog waa Sénégal yëpp jàkkaarloog communauté internationale yëpp nekkat alal ji lañu amoon lii lañ ci def nii lañ ko defee ku nekk wax ci sa xalaat pour que loolu bu ñu gisee li nga xam ni dafa doon dañ ko war a continuer ñu continuer ko bu ñu gisee li nga xam ne ci biir action bi mën nañ ko amee améliorer loolu aussi ñu jublu ci ndax président li mu sant gouvernement bi mooy lépp lu ñuy def rek dañ ko def ci transparence surtout ñu waxtaan ceeg askan wi ndax ñoom lañuy liggéeyal kon may sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen remercier voilà je vais pas tout de suite en français di que effectivement le gouvernement a un nouveau ministre en charge du, du, du, du transport du secteur ferroviaire Cela pour montrer toute l'importance qu'il attache au développement de ce secteur, où des investissements importants ont été faits. Comme vous le savez, il y a plus d'un siècle, un chemin de fer relié Dakar à Bamako. Depuis quelques années, malheureusement, ce rail s'était totalement dégradé et c'est la route qui avait pris le relais. Le président, dans sa vision, a estimé que le chemin de fer doit retrouver toute sa place. Et aujourd'hui, il y a un projet de réhabilitation. du chemin de fer Dakar euh, Bamako mais on s'arrêtera d'abord à Tambacounda et d'ici décembre on aura effectivement ce chemin de fer en même temps aussi comme vous l'avez constaté le TER est en phase d'exploitation euh, qui et ce TER nous vaut aujourd'hui beaucoup de satisfaction en termes de nombre de personnes transportées euh, on m'a dit qu'il y a quelques jours euh, on a atteint 100 000 passagers en une seule journée donc c'est dire que le potentiel, il, il est là. Il y a, euh, le, le, le, TR a été une, vision du président qui nous permet aujourd'hui d'être en matière de transport ferroviaire, en tout cas au niveau des standards les plus élevés. Et ce TR va être poursuivi. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase d'accélération euh, de, de, la deuxième tranche euh, Diamniadio AIBD. Et il y a quelques mois, le président avait promis lors d'un conseil des ministres décentralisé à Thiès, la poursuite des travaux jusqu'à Thiès. Nous avons aussi de fortes demandes en allant du côté de Mbourg. Mais la décision n'est pas encore prise. Nos services de planification sont en train d'étudier toutes ces questions et le président de la République a jugé utile de créer un secrétariat, un ministre auprès du ministre des, des Infrastructures en charge du transport. Vous le savez aussi, le Sénégal est de construire de nouveaux ports. port de Dakar, mais en plus du port de Dakar, il y a le port de Ndayan, le port de Sendou. Tout cela préfigure d'un Sénégal émergent où on devrait quand même tout faire pour améliorer la mobilité. Et de ce point de vue, je pense que euh, la mise en place, en tout cas euh, au niveau du département des infrastructures, d'une entité autonome en charge du développement euh, des chemins de fer, constitue une priorité pour le gouvernement. et nous allons nous y atteler. Je remercie. Voilà, merci. Voilà.